chers internautes du 221 bienvenue dans votre émission suñu Dakar. Je vous xarit yi ngi leen di nuyu kenn ku ci nek ci sa tour ak sa sant di len dalal jamm waaye tamit di len mastaw ci mbass bi di corona lembe de est votre toute nouvelle tribune réservée aux artistes et aux célébrités regardez et écoutez avec nous euh, leurs activités vie carrière et production Cheikh Internet tey nag gan gi ma am jaratul ma koy présenté tubaar fakàlla ndax su ma leen waxee le Messi de la musique sénégalaise seen xel am na fu mu war a dem waaye tamit ma leen waxee Gonek Saraba club gi na fu mu war a dem waaye tamit bu ma delloo na leen Gonek guichet fermé gi seen xel am na fu mu war a dem mooy Gonek Medina gi El Hadj maa ngi lay dalal. salaamaaleykum Torodo Samba Ngari Jama Tukulal Al maa ngi lay nuyu di la fay. di mm-hmm. kontaan ah, ci invitation bi ah, sunu. Ndakaaru Ndakaaru ndax ñun Ndakaaru ay doomu Ndakaaru lañ jal jëf sangumaar mhm. fukki penc ak ñaar yi maa ngi béggee ñëpp mhm. ah, le Dakar waa 221 di béggee àdduna di nuyu àdduna di ñaan yàlla tamit feebar bi fi nekk yàlla na ko suñu borom dàqal ndax fi mu ne nii moo la mbéréewu te jaaxal nañ trop dëgg la dëgg la mm-hmm. ba tax na tey sama première question dafay mm-hmm. daal di doon question actualité mm-hmm. parce que ku xam artistes yi xam ne artistes yi daanañu tëdd nelaw mhm. guddi gu jot ñongi ci boîte de nuit bëccëg ñoo ñongi ci studio yi di enregistrer te coronavirus bi dama gis ne daal dafa dafa taxawal seen bir ma lay laaj noo koy dundee en tant que artiste wa ñu koy dundé en tant que artiste metina na parce que nga daan liggéey liggéey yow mhm. dina metti trop ci nga yor njabot mhm. te yaqaro ci kenn sa bop rek nga yaqaar ah day xaw metti tuti tuuti dañuy sante yalla xamni yàlla moo ñu ko teg nattu la uh-huh. nattu du wees uh-huh. te yàlla moo ñu ko teg yàlla nañu ko yàlla teggil uh-huh. ndax loolu rek lañu am te mbas mi daal fépp la méttee métti na si ñun waaye dañuy muñ te xam ni te xam ni yàlla am na lu ñu jot defal ah, waaye nag lenn rek moo ñuy xaw a yéem tuuti mooy ñi nga xam ni ñun ñoo leen tane waaw ah, loolu mooy xaw a métti tuuti boo leen xalaatee rek day daal di métti parce que borom kër boo xamante ne dafay daal daw di wut mm-hmm. dépense mm-hmm. yaakaar ci li muy liggéey lu ci mel ni mm-hmm. tëggkat yi wala ku ci mel ni guitariste yi ñu ngi nii amatuñu programme dafay daal di métti dëgg la noonu la demee kon nañ sant yàlla ñaan tamit mbas mi teel fi ndax yéem na kat jaaxal na ñëpp doy na waar doy na waar El euh, su ma la doon laaj kan mooy El Hadj dëggantaan nga may wax ci quelque mot waaw El Hadj mooy benn jeune bu yàgg bëgg musique yàgg dund musique Euh, def ay compétition yu bëri comme ku ci mel ni ay Kassanga Mali. Mhm. def naa fa Kassanga def naa l'Afrique a ah, un incroyable talent Sénégal. Mhm. jaar naa ci sax si karu mbedd yeeg fépp. Euh, yàlla def na daal dama ko yàgg dund te lu doon nelaw ci man la euh, ma waroon ko yee. mu yeewal boppam. <clears throat> fa nga daanelee parce que da nga ne njëkkee nga ci sikkar ci mbedd yi. Mm-hmm. ba tax na tey man bëggoon naa xam euh, lan moo la poussé nga dugg ci musique. waa musique parce que damay dama judd fekk suma pap di way fekk suma turandoo di jouer Kora Senghor muy Soriba Kouyaté moo daan jouer Kora Senghor daanaka sax moom ba muy wàcc liggéey sax concert daanaka dafa jógee concert ñëw. wàcc xam waaw maanaam ku dundoon musique ku xamoon musique mhm. waaw moo tax ñun ba ñu ba ñu juddoo ci famille boobu fale ñu def musique mais début bi c'était pas comme sax parce que doo ko gëm doo ko gëm da nga koy jàppee ay fo papa dañ ñi ñoo lay njëkk di daal di la daal di noonu la demee dañ lay mokkee mhm. par exemple nga tëgg ba pare ñu naan la yéen joué nañ fi dara ay pot ngeen di tëgg tu vois mais loolu yëpp kay liggéey di gëm sa bopp ba yàlla def ah léegi ñun ñuy dégg partout des na sax parce que liggéey moom du doy du mokk tamit moo tax chaque jour dañuy def gën a góorgóorlu pour ñu gën a xam-xam ni ñun lii suñu métier la te dañ ko gëm uh-huh. te dañ ko bëgg mu nekk suñu xol la loolu kese moo tax ma dugg ci musique mu nekkoon sama deret ma yee ko. nga yee ko jeex na waaye avant nga ko yee xanaa am na ci loo doon yëngu El Hadj ci lan nga doon yëngu dëggantaan parce que xam nga xëyoo xëy. Hmm. dañ ci musique comme ni nga ko waxee léegi deret la bu nekk ci yow. te lu nekk lu bokk ci yow faaw mu yeew dama doon jàng jàng naa ba cinquième secondaire. dama doon hmm. jàng comme élèves yëpp waa ju yeewu jël sama sac dem jàngi ak ak samay xarit mais bu ñu daan toog classe sax pare saa yi man maay jiite way yuuxu. rek aw perturber classe yi ñuy tëgg ci yëpp yooyu ñun ñoo ko daan jiite ak Aziz Diouf Ndiouga Sarr ñun ñoo daan jiite Fallou juuf loolu demb la démb la dafa nekkoon ci man moo tax euh, musique sama destin la mhm. fallait que ma def musique parce que dama bokk ci famille mais mais tamit talent na talent seulement ne suffit pas affaire yi moom da def ay recherche moo tax ma dem jàngi plus de performance merci ma dem dugg Douta Seck dem jàngi guitare sama tonton sama ndijaay euh, euh, muy Alex père Alex Kouyaté yàlla na ko yàlla xaaree àjjana te yéex ñu moom a njëkk jàngal guitare yóbbu ma duuta sekk ñoom tonton Vieux Keita di ma jàppale mm-hmm. ah ñoom Adolphe Foucault di ma jàppale ci voix yi maanaam ma ma ma ma gëm ko daal bëgg ko mm-hmm. ba yàlla def nag tey ah, ma am sama group bu bopp tuddee ko groupe Tété di di jouer partout. Tété ah Tété moom ñaata ñaata bu ma la laajee ñaata at nga def ci aar bi groupe Tété ñaata at nga def ci aar bi dëggantaan parce que El Hadj boo xoolee da ngaa prouvé. parce que mm. suñu demee ba gonek Medina yi gonek Medina yi ñu lay woowee xale guichet fermé. waaw gonek Saraba gi am na lu ko waral ma bëggoon xam ñaata at nga def ci aar bi. ba prouvé waaw fi mu ne nii yàgg na yàggul. parce que bu ñoo joxe sax at parce que ñun tàmbalee guñu sax <laughs> commencé guñu sax moo tax du ñu joxe euh, li ñu maanaam ñu ngi ci. ñu ngi ci parce que ci parce que ku yor du sëkkat te te àdduna boo ci nekkee daal xamal fi nga jëm xamal da ngay am foo xam ne dang nga fay teg sa bët da nga vision bu boo xam ne parce que ñun bu ñu concours yi ñu daan dem moo ñu moo yokk suñu esprit mhm. parce que dañ daan gis beneen xeetu musique mhm. moo tax ñun yemuñu fiire dañuy xool feneen ci musique feneen non non wu ma sax ay tubarkaala te boo teggoo sa tànk yaakaar naa ne danga daa nga fa àgg ndax internet yi boobu ba tey ñoo ngi ñoo ngi réagir mm. ça se voit que bu nag Medina gi moo taxaw tey ci plateau bi mm. waaye El Hadj dañoo gis euh, nga génne ñaari album mm. benn bu ci nekk sept titres la nga teg ci trois single waaye benn benn bee ci gën a cartonné macha allah muy Bin Fall bi ma bëggoon nga wax internet yi Bin Fall bi lan moo ko waral inspiration l da wala exactement daal lu waral. bin Fall waaw benn matin man ak Aline Fall euh, bin fal bi mooy sunu tante la sunu lépp la yàgg ñoo jàppale dañ daan dañ daan jóge football sax ñëw ne ko bin fal defal ñu fi biir boobu firiir yi mi ngi jar ay deux cent trois cent boobu ba muy tàmbale ba muy door a boobu dañ daan jóge football sax ñëw ne ko bin Fall defal ñu firiir waaye ñu defal ñu ñu lekk ne ko ñu ngi ñëw dem. daw daw Pape ndeysaan moom tamit muy lool. mu yeew fajar benn jour daal man ma toog jóge benn télé rek ñëw toog. Mhm. nan ko biñ faal biñ faal est-ce que mën oh. ma def loolu. Mhm. te dama doon fo ah. mhm. ma dugal ko. ma gis. tiktok bi ñëpp di ma woo ku di ma woo ne ma El Hadj genre toj dëkk mën na lu xew ñu ne ma bin faal bi mi ngi toj. partout ñëpp a ngi may woo biin faal biin faal kuy lekk sax booy lekk salaat ak dara sax da nga naan Bine Fall envoyé ma vidéo bi vidéo bi jour boobu noonu vidéo bi kii laa yoroon ah, x x laa sama x bi dafa fees ndax vidéo yi vidéo Bine Fall te boobu defaguma son bi TikTok bi la woon léegi baxaw wooma benn jour na ma yow Bine Fall mën na ko yaa waaye léegi dëkk bi léegi man bin Fall lañ may woowee noonu la demee affaire bi tak ma na ko baxaw ay ca lii luñ luñ ba xam ne man kaay kër ga léegi léegi ma dem këram léegi ñu bind son bi. ci suba gi ma ne ko ne suba ñu dem studio dañu bind son bi tey. Mhm. ci suba gi ma ne ko dañu dem studio. ñu dem studio laay jaañ. tubarkàlla loolu mooy bërigo ci mbartal pousse mu mm-hmm. dem ñàkk a pousse mu mm-hmm. dem mm-hmm. Euh, mais Bine Fall parce que man man personnellement première fois bi ma gisee Bine Fall bi ñu tegal la palaat bi ci table bi maa ngi la gisee TikTok man dama jàppoon ne sa jànk la parce que ñu bari dañu foogoon ne sa kër nga toog sa jànk mooy Bine Fall et tout ma bëggoon nga expliquer ma ak ñeneen ñi ci ginnaaw moom la Bine Fall mooy sunu tante bi day jaay firiir bi euh, fële fële mooy euh, corniche corniche lay jaay moom depuis temps aussi depuis temps Ablaye Wade bi tunnel ba bañ koy defar sax moo doon jaay ñi ko daan defar ouvrier ouvrier moo doon daan jaay añ yàlla dafa def muy doon une femme battante koo xam ni dafa yàgg liggéey dafa yàgg yeewu fajar yàgg gëm boppam man nag lii nii yàgg naa lekk fiiram amul lu koy fay su ma jum la nekk exactement wala su ma jum la nekk yàgg naa lekk fii réeram te amul lu mu ko fay. Eh. maa ko way way bi pour fay ko. faye ko bor la nga ko la ko ameel yëpp. la ma ko ameel yëpp laa ko fay. dëgg da a door moo ci mag yi moo waral. non fay naa ko fay naa ko noonu demee dama ko fay ba pare yàlla fay ko xolam ci son bi ak ni mu baaxee ni mu yaroo mu respecté doomu aadama Bin Fall dafa baax dafa fonk ñëpp. moo tax yàlla xolam la ko fay du man du sama njàmbaarte du sama ngóore yàlla ne woon bu ma awee Bin Fall rek. bal ba day tàkk ma way biir faal yàlla la rek duñ ci dara duñ ci dara macha allah macha allah mais El yow man dama bëggoon xam sa relation ak jeune artistes yi mhm. parce que ku xam milieu musical xam ne mhm. dafa doy waar mhm. rawatina gone yi nga xam ne dañuy door a door parce que am na ay diirante mbagg am na ay am na lu ne da nga ciy gis lu ne voilà ma bëggoon xam tey sa relation ak jeune artistes yi nu mu demee noo koy dundee yàlla def na man moom universel la ñëpp bëtu mbëggee laa lay xoole ba pare dama leen fonk àdduna da ngay fonk sa nawle dama leen fonk respecté sama nawle très important noonu la demee ba pare yéene ñëpp jàmm moo tax du ma sonn mukk musuma concurrent musuma dund loolu parce que <clears throat> ala kuliyaali li ma war a lekk du doomu aadama moo ma koy jox yàlla moo ma koy jox moo tax ma gëm sama bopp gëm sama liggéey ba pare gëm leen ñoom seen liggéey parce que ku ci nek yalla nu lay def ndax ku ci nek yalla lam lay sédd bo soxorul bo iñanu rek ala kuliyaar yi da nga ciy jot moo man foofu la tëddee nga tëddee njaaxaan aw awma ben problème ak kenn musuma am problème ak kenn ku am problème non mom la conseil yaakaar man mi musuma dund loolu waaw parce que dafa am ben internet bu bind mhm. ne dafa bëggoon nga leeralal ko sa digganteeg euh, Pape Birahim nu mu demee parce que tubarkàlla ay ndaw ngeen te yéen a bokk mi Pape Birahim sama mag la mhm. Pape Birahim sama kër la tàmbale fa la doore kër la doore ma koy nuyu de passage Supion Ndéné Ndiaye mas ma ca barñi géej géej ku ba lay ci Ndiaye Birahim sama mag la sama xarit def na ma moom sax ñu ngi waajal benn affaire boo xam ne ñun koy def man dama dama dama fonk ki ma mag ak ki nga xam ni man maa ko mag nit mënoo mag sa mag waaye yàlla mooy maye mooy may tuur li tur bi ma am du nit ma mu may yàlla ma mu may duma ci dara ak sa jom ak sa nak nah tubarka la damay deg mag ni di wax mhm. mhm. ne gone bu loxom setee mo meuna bok ak ay mat ndax ta dara du ci rot deug neexul ba taxna na tamit bëggoon na nga leral ma sa diggante Tarba mbay parce que gis nañ ne yena bokku bokk aar bi waaye vous êtes trop proche mo bëggoon xam woon na ma démb ci fajar ma xam question bi moy dama xam sen ci la juddo wala dafa juddo arbi bi ci aar bi juddoowul ci aar bi ak papam sun papa Alaaji mustafa mbay mhm. waaw muy sama lepp di suma papa di suma xarit sama conseiller Tarba mang mom musique Tarba bamay vacances sama cœur papa Grand Dakar chaque vacances fala des vacances papa Tarba bobu wayul man wayuma mom luñu du musique musique la wax fajar mu ma dem bante ko ak corona bi dem fils la sama Tarba c'est mon fils def c'est mon fils loolu <laughs> loolu yàlla day boole montre baax yee boobu <laughs> heure gis nañu relation bi ni mu demee. non moom moom may wax man maa moom maa ngi euh, du ma ko guddal moom xam na man xam naa du loolu du du aar. du aar mm. neex na neex na euh, mais El Hadj samay recherche mm. ni ma la jàngee euh, parce que dëgg neexul nit boo ko bëggee xam dëgg da nga koy laaj waayam. Mm. ndax ku ne waayam moo ko xam. ba tax na d'après nos recherches da nga nekk nit ku fonk sa nitu démb ci li ñu wax mm. euh, nit ku fonk xarit ba tax na gis nañu sa clip bi nga def xarit mm-hmm. wax ci lu daw yaram wax ci lu doy waar te ku la jàng dëgg gis comme li nga wax nii ci plateau bi yow ak Taba Mbaye démb la te mm-hmm. aar yàqu ci dara ndax bu la neexoon nga yëg sa bopp nax tamit ndaw nga te mm-hmm. fi mu ne dangaa xew dëgg neexul bu la neexoon nga yëg sa bopp defoo ko yaa ngi jàpp diggante bi boobu ba tey muy gën a ratax di gën a neex moo tax dama bëgg ñu dem régie xooli vaar comme ni nga koy waxee parce que dafa mel ni daal dugg nañu ruku daal pour lëj mët la tuuti ñëpp waxee loolu ba pare kon bu ñu génnee ñuy wax baaxaayam parce que waa kër wax nañ ba pare ñu élage nañ élage bëgg na nit fonk na nit jox na respect nit man damay ànd ak moom mais day def yoo xam ne man après dama naan ba kii dafa ñàkk fayda ko mm-hmm. day def ay affaire bi yoo xam ne dama kii day waykat léegi mu garder image am yooyu mais élage dalay dalay sax waa otom gaare wàcc nuyu la siyaar la bégee la jox la loxo def lu neexat dem yoonam bu ñu jógee si oto mën fu ñu dem nga taxaw mën a booy bàyyi la garaaw àdduna amul solo ak yooyu xam ne kii nii lu muy wax chaque ma koy wax loolu chaque mu koy continuer ma xam ne kii nii lii mooy gàllaajam kii baaxam bu ñu wax nañ ko bàyyi mu nii rek bàyyi faal la daal simple si moom parce que moom bu ma rek xam naa ni mm-hmm, mm-hmm. dañ dama ko bëgg wala dama ko fonk ba mu ëpp dama loolu ba mu commencé ànd ak moom ba léegi yàgg xale ba léegi ñoo ànd barke alxuraanu karim te mosuma bu ma xul ak moom deux deux jours troisième jour mu jubóog na barke alxuraan ba boo yëpp noonu la ñu mel ñoom. Uh-huh. du xuloo kenn bu mat cinq jours wala six jours. bu uh-huh. matee quatre jours après mu may wàccee boppam ñëwaat wax ak yow na la bàyyi wala mu wax la benn wax nga reetaan mu dem mu dem ngeen nekkaat si jàmm. moom noonu la mel ay nitu démb moom mënul leen fàtte mënul mel noonu parce que Baye Fall la El Hadj du moom boo ko tooñee sax du xeex dala naan jéggal naa la bàyyi mu sedd wala lii El Hadj fa la doon xeexee. Mhm. cant ku muy sikar loolu yàgg na ba mu dënee nekk xale. Mhm. da doon jël micro rek di sikar rek ñu ne ko Allah mu ne laay laay la laa rek kenn tuur ko arrêt kan cant yi tas.

te gisante wul papa ji am na sax du day gis yaay mais mënul toog deux jours bu toogee rek day jékki-jékki rek day mel ni yaram bi daan ndeysaan jëm si yàlla suñu waaw ah, suñu baay bi yàlla na moom day jékki-jékki ne ma nañ dem sama papa ma xool ñu dem Grand Dakar xool papa ji yooyu papa ji reetaan ñoom ñaan ñu wayalante yooyu xam rek dafa kontaan mu dem bi papa jékki-jékki El Hadj na mën na ko suba naa ñëw ñu toog deux jours te gisu baax mais waaw doomu yaay la moom xam nga àdduna moom dafa dafa dafa yéeme day am ñoo xam ne dañuy bëgg am na ñoo xam dañuy bañ waaw yàlla moom dafa sàq loolu doomu aadama ñii dañuy nangu ñii dañuy nangu te loolu yëpp sant yàlla boo amee ñoo xam ne boo amee mii ñu nangu ñaar ñu nanguwul bu baax El Hadj nag moom dafa gàllee si musique bi. ay la bu ñuy dellu nga def ak biram booy ñëpp dañ ko dund dañuy dégg lu ne. billaahi wallaahi ba El da doon soirée yoof seen sat yoof dañ doon soirée foofu entre mille francs la doon entre mille francs ñëpp Medina ñenn ñi ñëw ñuy def noonu muy soirée ay Miami ci soirée Miami muy fees ñu dem yu fee nu tudd ville muy fees lépp ñu koy feesal daal mais jékki-jékki ñuy dem Saraba di ko feesal jékki-jékki ay wax yu bon di duggee ci bii naan El Hadj bi dafa war a kii El Hadj lii na way bàyyi lii El nay laa El moo leen gën a bëgg a way moo ñoom El Hadj moo gën a bëgg a moo dàq way mais du loolu du du du si El mais El Hadj après ko wër la ak ki ko jiital mm-hmm. mais bu fekkoon El rek rek rek rek rek dina way ba xottee ko mais nit bu ndax dëgg neexul nit ki boo ko bëggee xam da ngay jege ku ko jege. Mhm. te yaakaar naa ne sa xarit bi ñuy wax Alioune Fall li mu wax ci yow daw na yaram. Mhm. te yaakaar naa ne tamit mbokku internet yu koy déglu tey ñu bari bu ñu xamul woon xolu El dëggantaan wala ñu xam El dëggantaan ni mu mel ni muy doxalee ak jëfinam tey ji euh, leer na. Mhm. waaw moom sama xarit la moom moom daf maa xam moom maa xam dañ ñoo defandoo lépp daf maa xam te sama waay la quoi maa moom du. depuis xale la moom sama xarit la sama lépp la daf maa xam sama moitié la mun ma wax ci moom parce que dama dafa bàyyi léppam ndax man dafa bàyyi léppam ndax man te mu dégg ci lu ne nag. mu dégg ci lu ne te boobu ba léegi ba mu jàppee bàyyiwul waaw moo tax maa moom ba ba macha allah ah incha allah yal na si yàlla bàyyi tuddante doom am ci sax. non par force loolu c'est mais El Hadj bala may. loolu c'est automatique égali man dafa am benn affaire bu ma remarqué wul woon mooy li nga aligné. non dama ñëw jàppale suma télé bi. non mais bu ma wax ne ma da ngaa fay tamit la damaa man damaa bandi. dama xam couleur xale bi nga sa bopp. dama xam couleur yi dama xam ni sama télé bi rouge blanc la. Ah. man j'adore euh, rouge blanc. ma ma indi rouge blanc. ba xam nga ni génnee na la lu ne ndax internet yi ñu ngi commencé naan ma Toro da balay El Hadji dem may ma ko ku ci nekk mi may laaj numéro téléphone. ah pare nga. ah. ma ne nag pare nga. <laughs> ah foofu laay ñëwee nag parce que El Hadji man dama bëgg xam El cœur à prendre la El Hadj dafa bëgg El Hadj loo teree takk dëggantaan parce que tamit bu dee takkagoo. Hmm, faaw ñu xool affaire yi parce que gars yi ñu ngi réagir. takkaguma dañoo bëgg ñu ngi bëgg a fëgg. takkaguma vaar nee na ma ba ci kanam. vaar dëggantaan El Hadj cœur à prendre la. non xool de. non takkaguma. tubarkalla àddinaa lay déglu takkaguma mais mais am naa ku ma bëgg. waaw ah, bëgg a xam takkaguma am naa ku bëgg te incha allah ñu ngi ci projet yooyu. ma yeew ko soxna incha allah maa ngi ci projet yooyu. bien sûr ndax jigéen. barki bi jooy naa ndax jigéen dama faible. dama romantique je suis trop faible en amour. dama bëgg dama damay jooy. da ngay bëgg dëgg. barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. lu jafe damay um bëgg damay um tuur xéwal ndax jigéen. Oh. parce que dama fonk jigéen. moo ma fonk suma yaay. teg sa lu ma jigéen def laa la wax ni lu tuuti daf may metti dama sensible je suis trop faible. d'habitude, tu es dans daan dégg d'habitude waa naanal parce que xam naa ne li nga wax tamit ci ala <laughs> ah, dafa mel ni sa xale bi fi mu la jàpp tamit dëgër na de. <laughs> tubaarkaala yaa ngi koy kennal daal. Euh, xam nga d'habitude dañuy gis jeune artistes yi xale jigéen ñiy di leen di fowee gëmuñu dara. Mm-hmm. tey bu kii suba kële ñëw. comme xam kon tey boo taxawee ci plateau bi wax ñëpp di la déglu nga ne carrément ko da ngay bëgg da ngay te incha allah bu ci yàlla defee jàmm daa ko takk. waaw ah El raar na de. raar de waaw. man na parce que je suis je suis sérieux parce que li may wax lu dëggu la ci man. lu dëggu la ci man barke Cheikhul Khadim lu dëggu la ci man li may wax dëggu ci yow. lu dëggu ci man. Tata Ba nag ngay waxee nii nii nii nii. Euh, fi ma daanelee sànq laa yëkkatee ndax El Hadj voilà est-ce que pare nga pour jàkkaarloo ak internet yi tontu message yi. jàmmaloo ak ñoom ragaluma loolu. ragaloo loolu. man keefuma ay message keeroo loolu. ñu gën a vulgaire sax. question yi bari nañ de El Hadj te xale yi dañoo féroce dañoo am melokaan. jeex na man ragaluma loolu. yii El Hadj question bi euh, <laughs> El Hadj internet yi nee nañ sa tubay bi nga soloon keroog ba ngay fecc di sinap non bu ree non faaw nga tontu ci loolu gars não loolu lañ njëkkee Não, risque ah. bi risque bi. non risque bi Não, non fecc boobu nga yëngal fii. non non não je te cache pas xoolal boobu ñëpp a stressé wu boobu não bi mi ngi stressé mi ngi stressé ñëpp déglu bu baax de. bu baax boobu feebar bi mi ngi stressé ñëpp parce que yonent bi gars yi kenn kenn kenn kenn fitu kenn toogul. Mhm. man daal maa toog maak sama gars yi chaque guddi dañ daan def confinement obligé chez nous. dañ daan teg sa téléphone bi ah di fecc suñuy son bu ñu feccee euh, Wizkid pare dem ci nan la tudd keneen ka waay keneen non keneen keneen am na keneen waay sunu kii ba Falavour la xaw ma Falavier xaw ma Falavier yow daal kon da nga doon dàq sa stress sama stress ba euh, benn jour daal ma toog Davido génne benn son risque bi

ma def samay couleur tubéy bu jaune jaune jaune ma def benn t-shirt bu orange mais am fii jaune mhm. ma xam ne jaune yi bari na ma mhm. tag benn coppite bu jaune mhm. pare teg maraaka si jaune eh bu fàtte coppite bi coppite <laughs> bi bu yi moom la wax ne def samay vert la risque bi di fecc lu ma neex di sànneeku mais barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Cheikhul Khadim xam na ni ñu bari dañ maa woo ay ay nekkuñu fi barke yonent bi ne ma damaa stressé woon mais dangaa dindi sama stress El Hadj Keita vidéo bi lay seetaan damay ree mais là un artiste doit être polyvalent polyvalent un artiste par exemple ça di nga am benn côté humour mais attends du way kese nga mën a bëggale nit da nga koy génnee man dama am loolu mhm. je le cache pas de de. gars yi non non El Hadj nag. gars yi ñu ngi ci sa sañse bi. non risque bi parce que message yëpp daal ci sañse bi la lépp ci sañse bi la. xaaj bi mais kenn ki moom nee na Mame Balla Mbaw Mame Balla Mbaw moom nee na dara dara dara jaaxalu ko nee na sol bi sax peut-être mënoon na yomb mais nee na ba nga koy simmi kana kana ci jàmm. Mm. noo def ba dindi ko. Mm. Mame Balla loolu la laaj. ne ko tubay bi élastique la. élastique élastique la day boo defee nii rek day internet yéen ngi dégg mam Balla Mbaw élage nee na bi élastique la non yoy du ki né yaay téel ma ma min simmi yaay jàppal ma ma simmi du bobu du yooyu ah élastique la ñu wat <laughs> euh waji ji ñuy wax Omar Bambistu Lom ci internet yi moom nee dafa am ben affaire bu mu la bëggoon laaj nee nax li ngay wax tout le temps di màcc sa tuñi di feemu nee ñu démé non daal nee ci feeling la wala dala dap wala Omar Bambistu moo laaj loolu ça fait partie de nos trucs il faut que way bu fekkone way rek la ñëpp mën nañ way way dafa and ak tias tias à cas ànd ak des trucs yo xamni c'est des trucs des dégagements parfois tu fais des trucs yo xamni ne mm-hmm. dinañ xamni ki c'est un artiste mm-hmm. la simplicité c'est pour les faibles parfois on da simple humble ni manam naturellement modeste. humble mais soy def ben affaire ci art mm-hmm. non dangay teg modestie yooyu noonu yëpp teg ko fële de. di fële fu def li nga def li ngay def li ngay def ba pare. yëngal gësam def ko yu asiko yu Medina yi waaw waaw. non El Hadj ragaloo de. ëpp na non ragal yëpp yàlla la. non affronté nga leen de. non ragal yëpp yàlla kenn ki nee na man li ma neex ci El Hadj mooy assurance bi mu indi ci plateau bi nee na li nga leen di tontoo neex na ko. mais nee na xaaroon na El Hadj ñëw ñu wax ko ci tubay ji mu xaw a. feebar tuuti laaj ma barki yonent ci yàlla Mohamed euh, comme ki nga xam ne moo may ruube wala di ma saaga wala di kii kooku laay jox valeur moom laay way ci direct bi yëpp mu jógee moo may jël suuf na ma yow est-ce que nit nga mën ko ci lan mu ne ma yow sànq ba léegi maa ne waxu ñaaw waxu kii faalewu ma mhm. i ma ne ko man dund ma loolu parce que réseaux sociaux dama ko xam mhm. dama ko teel a jàng dañ ma ko téye man damay xool lu rafet rek ma xool mukk lu ñaaw ma gisee lu ñaaw rek tak man maa koy rafetal bil ihsaaniya dama koy rafetal ndeysaan parce que àddina amul solo mm, te ndeysaan mooy li ma lay wax rek yëgoo sa bopp boo yëgoon sa bopp heure bi fekk na la boo dox da ngay wiccaxu non fi ku ci nekk rek waxal nañ la nu ne kii yow yaay maîtriser rek ñun ñoo opté nekk des artistes mm. dañuy dëkku lépp lu ñu wax tamit sax nag boo seetloo waruñu ci gis dara te tamit sax mënoo nekk artiste te xamoo aar la dem xam aar bokk na ci maîtriser ñu lay mm. saaga ngay dékku ñu lay wax lu ñaaw ngay dékku loolu mooy àdduna xam yaa ko opté loolu mooy àdduna loolu mooy àdduna mm. boo ci nekkee la nga opté moom daa nga ca dégg lu ne sagam sëy sax boo cay dugg daa nga ca dégg ñu ne la du dem ñi ne la nangam sang du tee da ngay gëmm rek topp la nga bëgg topp li c'est ça c'est juste ça man noonu laa mel dara sonaluma billaay du ma toog dara ba nit wax ma dara même bu méttee sax. Mhm. ba ma gis ko sama bopp. ndeysaan la jege ni la jege lay metti mhm. comme vidéo boobu noonu ba ma ko defee am na ñu ma jege ba ñu gisee commentaire dañoo mer. comprends nga. man maa leen di defal. ne leen non mais attends man maa ko opté pour être un artiste faw ma dégg lu ne. faw may dëkku. te àddina sax booy jaar yoon ba faaw bari xam wax di ci la lay daal di gàggantal dëgg neexul waaye tamit bëgg naa nga wax ma sa secret bu dee ay butéel yooyu laal la nga jox ma ci ma sangu xale ak saara baa Serigne Touba Mbacke gisee fermé eh, non El Hadj wax ma leneen Serigne Touba xam na ne xam kan mooy sama sëriñ kan sama yaay barke Muhammadu arsala walillahi barke Cheikhul Khadim sama yaay yéen a ngi dégg fonk leen seen yaay yaay kenn la gàllaaj bu gën a foor mooy yaay dama amoon yaay am papa waaye sam papa dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla xaare àjjana te yërëm ah mais suma yaay léegi mooy suma sëriñ lu ma am sama yaay lu ma am sama yaay lu may def sama yaay barke yonent yàlla mooy sama sëriñ bi mooy sama lépp amul tànku ginnaaw boo koy jox nii ah lépp loo am defal ko oh. del jàpp di julli rek lu émouvant lu émouvant yaa ngi wax dëgg gu wér peen dëgg boo euh, dara du ko dindi te ko feeg ndax léeg-léeg nga dem ci sëriñ mu ñaanal dangay am njort bu mm. rafet ak yaakaar rek ne lim la ñaanal dina dal waaye leen nañu biir te wóor ñu muy ñaanu nday ala kuli al day dal xolu nday bu sedd ci doom mm. puus mu dem puusul mu dem comme ni ma la ko waxee kon tey ji tey mm. gonek guichet fermé gi na ko ñëpp dégg du butéel du dara man sax foogoon naa ne ay yëngal gësam la xam rek ba ma ko ciy laaj yaay la yaay kese yaay grand théâtre bi bëgg naa nga wax ma ci tuuti nax yëngaloon nga réew mi. Hmm, grand théâtre bi mooy fonk say nit parce que nit yi kenn moomu leen nit yi boo soxla man yàlla dafa def dama am complicité ak samay fans mooy bu ma la bu ma soxlaa vidéo même lu ma sonn sonn dama leen defal benn petite vidéo dëcc bu amee damay dem jaale ji ngénte bu amee damay dem bu takk amee damay dem tuuru famille sax bu ma demul studio boo ma woowee ma dem tuuru famille bi. parce que eh euh, parce que tamit euh, nous, on n'est pas des stars y a le def devant la scène mais nous, ñu a chaque jour nous, nous, nous. rang ce soir rang ñoy rang buuxante ba son dugg jënd billet dugg dugg jënd sa cons consommation ñu jënd cons ngay way Nous, may la di ñibbi xoolal yoon bi nu muy soree parce que ku ci nekk. di ak fi ñuy jógee ba pare ba pare ba pare nga xëy suba. xëy suba dégg kenn ku ñëw ne la eh, sax waykat bi mënul dara day yuuxu rek nga xuloo moom. kon kooku da nga kaa war a foog. wallaay kooku di def loolu. man loolu laa am complicité boobu laa am ak samay fans moo tax bañ ma wuysee du ma ne gulet la ma leen la ma leen defoon defaloon la nga leen ji rek lañ la fay lañ ma lañ ma lañ ma fay moom bumerang la ne na nga mel ak moom lay mel ak yow yàlla di sant sama fans yëpp partout dans le monde que commencé am fans partout léegi dans le monde gis nañu fépp dañ ñuy woo États-Unis foofu delloo fa sa loxo ma fekk si la France ah dellool foofu sa loxo ma fekk si la ndax euh, affiche bi affiche bi mm. ba mu ba mu génnee ma def ci la Messi de la musique sénégalaise El Hadj Keita sama statut da doon toj mhm. sama whatsapp di exploser sama mhm. messenger waxi nopp mhm. am ñu ñëw ne ma pour lan le Messi de la musique sénégalaise euh, El Hadj Keita le Neymar de la musique sénégalaise la woon am ñu ne ma juumoo leen parce que El ba muy door door door di tàmbali di wane preuve lañ ko tuddee le Neymar de la musique sénégalaise mm. kon tey da ngaa wane say preuve ci ñoo kenn nee na ma El Hadj Messi bi ngeen wax jumo leen ci parce que dafa wane preuve su demee bay def guichet fermé ci jeune artiste mm. dem ba bu wootee grand théâtre affaire bi fees ba nit ñi dañuy dëpp ak seen ay ticket mm. El mu doon loo xamante ne mbégte la daal yaakaar naa ci yow ak jóge fii dal fële te loolu nga doon mais loolu mais loolu mais loolu avant ma am album avant la avant ma am single laa commencé def penc mi guichet fermé penc mi ma dem woo Papa Thion mu jox ma penc mi ak Waly ma koy nuyu de passage. sama mag sama xarit Waly. pap pap suma pap Papa Thion jox ma boîte bi ma fay joué. ma daan joué Waly bu demaan tournée tak man maay joué penc mi. mais baax na yow ak Waly boo leen diyoof. àddina day non loolu day am loolu day am suma mag la suma xarit la. Hmm. moo tax ma la sànq njaaxaanaay laa tëddee. damaa tëddee njaaxaanaay. Wally sama mag la sama xarit la daf maa bëgg daf maa bëgg man mu xam ko man ma bëgg ko Pape Diouf daf moom ma njëkk yóbbu Bercy ma taxaw sur scène mu jox ma micro Pape Diouf Diouf Viviane moom njëkk yóbbu Zénith ma taxaw mu jox ma micro dégg nga ma bu baax dégg nga ma bu baax Pape Youssou Ndour chaque première partie succès suma lépp la bàyyi Birane Ndour sama kooku sama lépp la Ndour Wally Mergane sama lépp la Abdoulaye Darou Mbar sama lépp la mu mu man première partie Cissés yëpp damay joué. kon yow daal bu ma la paree bu ma paree première partie Cissés yëpp ba pare Youssou Ndour daf ma defal loo xam ne dafa man man daf maa yéem ba léegi grand théâtre ba may waajal grand théâtre hmm. Youssou Ndour ñëw ba Medina ñu defal ma surprise wax ak man conseiller ma ne ma ndax yaa ngi répété. man quoi mu ma ay ca doxalal. ma doxal xoolal loolu. loolu moy li gëna a ci àdduna. kon yow dal kon man motax man la motax man sank man la je suis maa ngi nii dama ci nek ci yoon bo xamné xoluma kenn teguma bët kenn dafa je fais ma musique comme ni ma ko sentir dugguma ci détail. nek ci li nga wara a concurrence ma jaxasoowuma ak def ay tendance jamais je suis dans mon truc dama ko gëm te xamna li ma ci bëgg te xam fi ma jëm. macha allah macha allah bu ma la déggee mooy amoo sens interdit ak kenn ndax dafa am yoon boo tàmbali te bëgg nga mm-hmm. faa egg te tubaarkàlla ni ma la déggee nga wax mooy bëggoo lépp lenn loo xamante ni ay détails la bëggoo ñu lay dégg ci lenn El Hadj euh, <laughs> non da doy waar <laughs> non tey am naa gan ah, ah, parce que Medina gi mayoo ma dara waaye mayoo internet yi dara waaw gis nga de noonu la deme hmm? àdduna noonu la booy ku yor du sëkkat ba pare nit munoo mag sa mag nit boo fekkee boo ñëwee ci aar fekk say mag ak say papa mhm. da xam ni kii sa papa la mhm. xam ni kii sa mag la mhm. xam ni kii sa nawle la wala kii sa moroom la jox ku ne cër jox ku nekk sa cër du tey yow la nga war a am da nga koy am ala kulli haal loolu la olof Njaay naan yar ak teggin lu mu la mayul du la ko xañ te gone boo nangoo say loxo set rek ndab loo toog boo jógee sax dañ naan la toogaatal boo xefee ñu dollil la loolu kese la loolooy àdduna am na solo doo ko rëccu maanaam bu ñu bu lu mu bari bari bari lu mu bari bari bari bu ñuy séddale. ah la fàtte. da am <laughs> boo xefee sax bu jeexee dañ lay dolli déggoo ma de da am même bu fekkee tuuti la nu néew la di nga am. loolu moo am solo àdduna loolu moo am solo. Mhm. bul waaw. mais El Hadj ni ma gisee euh, mosoo football El Hadj da doon football wala. yow yow man damaa mën a football. waroon fii bal waroon na fi nekk. Eh, waaye damaa mën dugal ci biir ba pare damaa mën dugal bi mais mais jaar nga nawetaan damaa mën dugal bi damaa xam camp yi. ah defal naa jaar nga nawetaan woon. Hmm? wax ma ban poste ngay joué. attaquant la man damay dugal bi yow da ngay attaqué daal. man attaquant la damay dugal bi dama xam camp yi. ah damay dugal bi damaa xam camp yi. <laughs> neuf wala ailier wala. wala ma de. attaquant gañ mooy. jeexal yow da ngay attaqué daal di dóor bal yi muy non non attaquant mooy maanaam bal bu ñëwee tak nu ne mën nga ko dóoree mu dugg. day dugg nu mu ñëwee nga kii day dugg par la force non damaa mën a dugal bii. démarque daal damaa xam camp yi wala tey góobo de. damaa xam camp yi damaa xam camp yi. ñaf xale bi ragaloo ko rek Medina gi lan. yow daal da ngay dóor muy dugg rek. waaw man lay dóor mu dugg. yow daal muy esquiver ngay man lay dugg waaw man ay poto yeeg mu ci bolu bar ak yoy noonu man nono mais la jaar nga nawetan quand même. parce que li nga wax ni ci performance mom euh, bo jaar nawetan mom dama jaar école football ibouba ndaysan suma papa papa Idi Idi gay yoron ko ba pare suma mak suma xarit yalla nako yalla xare àjjana. Mhm. muy Lamine bay mu yoron ko Lamine bay ñu ngi koy jaale mama Koura. di ko jale wa Medina yëpp. ndax mom moo ñu jàngal football. ba pare ma pare fofu dem pas As jak suñu papa Paas Diack ñu ràq ci Lamine Diack président moom dañu jaar ci moom Paas képp ku jaar ku nekk Médina rek wala ku nekk football Médina rek jaar nga Paas. jaar nga Paas yàlla def jaar nañ foofu ñu football foofu mais musuma football nawetaan. musuma football nawetaan ah, kon daal da doon football ci koñ bi di ko toj daal non ci koñ bi. école de football centre de formation la Paas Diak ak ak Ibou Ba mooy Ibrahima Ba waaw moom tamit joueur la woon équipe nationale waaw Ibou Ba ñëpp xam nañ ko dëgg la mhm. El Hadj milieu bi nga nekk ñàkkul ne ba ngay door a tàmbali ba tey mës nga ci am lenn lu la gën a metti ba nga dooreek léegi euh, noo ko lenn moom a metti mooy ba may sama papa ba muy génn àdduna fekk ma fi ci avion bi fekk ma jóge Paris di ñëw bu ma ñëwee trois heures ñoom Aline Fall ñoo ma jël si ak biram ni ma jël see laa xam ne sama papa gaañu oh. parce que damaa yeewu gis sama appelu papa ay neuf heures parce que dañu defoon escale Bruxelles ba mu wàccee ci avion bi gis ay onze heures et quelques ay onze heures fekk sama papa mi nga doon woo neuf heures ci suba ndekete ba ma wàccee Bruxelles appel bi def onze heures quoi onze heures foofu senegal fii nii. noonu la demee ma wàcc ay trois heures yooyu ñu. ba ma xoolee kanamu gars yi rek dina may. xam ne am na lu xew am na lu xew quoi tak booy ni ñu ma côté. yàlla ko yàlla leen lan yàlla ko yàlla xaar àjjana loolu moom gën a metti li mu fekkeewul sama. waaw fekke lu bari daal ci yoon bi fekke waaw parce que moom gunge woon na ma ci yoon bi sama papa ndax ku ne daanam bu ne bu mu xamoon yëpp woo na la ne sama doom la day way. jàppale ko waaw noonu la demee moo tax. loolu rek moo ma xaw a métti ci waaw mais damaa xam ne yàlla mooy moom moom jaam te saa yu lu ko neex rek lay def te lu mu def moo gën te lu mu def dafa gën sax mm. lu mu def dafa gën lu mu def dafa gën mm. loolu moom gën a métti ndeysaan lu lu touchant la lu métti la ndax ndaw bu nekk boo nekkee ci yoon di door a door sa sa sa waajur ànd ceeg yow gëm la gunge la ci boo sañoon boo toogee ba ba bay féex mu fekkee lépp nga mën ko cee teral mm. mu xam ne sama doom ji coono bu ma dajoon ci moom rek tey euh, mm. yàlla fay na ma ko mm. waaye yal na ko yàlla xaare àjjana te yéexeñu yow it yàlla defal la jàmm comme na ma ko bëggee woon ak na ma ko doon souhaité léegi El Hadj damay dellu si euh, loolu mooy lu la gën a métti ci milieu art bi mais tamit bëggoon naa xam lu la gën a neex lu loo xam ne daf la marqué ci mbégte ak ci bànneex grand théâtre ba ñu ubbee rideau tag ma tourné gis sama yaay oh. mais jooyoo xanaa. non jooyu ma boobu dama mbëgte laa àndal. jooyu mbégte. non jooyu mbégte jooyu xol loolu sama xol bi moo sedd. dafa glacé ma def nii. ba mu ne non damaa way lu ne laa def. prier sax def naa ko. parce que boobu dama gis sama yaay. xam ni mosul def musul dugg ci yooyu mosul dem foofu musul def. musul génn waaw musul génn ci xam yooyu noonu ndeysaan. dégg ma ne dégg buñu ñu grand théâtre bu bu yàggoon tuuti day nelaw foofu. mais tamit mbégte la woon parce que tamit dafa neex. dafa neex grand théâtre bu yàggoon tuuti sama yaay toog nelaw ba ñu filmer ko loo. lu ay yaay buñ la filmé woon pa ba ngay nelaw. <laughs> non élage Hadj yaa ngi may daaj. non loolu mu gën a neex. mais El Hadj tamit bëggoon naa. Euh, nga def benn acapella nga defal ma benn acapella ni fi nga taxaw ci D221 et tout ak émission beeg yooyu. من واخو خميون واكو جن دازوني كبخم واي مانجن يوري كودو بلغي لا كلين بابو ساكو تبخوكو تكون لا جفدي بنت يا خول البباخ نينالين ما شاء الله دنجن دي دم وغل كن دولن كي دنجن دم كن دولتي dangay dem ni naa la mashallah dafay dem de deux cent vingt et dafay dem ni naa ko mashallah dafay dem. ndeysaan <laughs> ah baat bi neex na baat bi neex na mais. Elane est que xam nga ne kontaan naa. fii te tamit nag ah, say nit réagir nañ ak doole. Ah. waa Medina ñi ngi rëppatal fii. Ah. waaye tamit waa No Stress de suñu ginnaaw. waa ëxlu bi de suñu ginnaaw waa de suñu ginnaaw. Mm-hmm. direct baa ngi toj bëggoon naa nag nga yor sa téléphone. Mm-hmm. daal di ci am yoo xoolal sa bopp daal di koy tontu directement parce que am na yoo xamante ni jottali ko daal. al ko mm-hmm. téléphone bi mu tontu. Okay, okay. Yani -hmm. Uh, yaa ngi xool ah? da di cinq minutes rek nga may leen cinq rek bu dee tamit gisoo lien bi amul benn problem, ma liiral la dóoral ma fa. ma dóoralal la ah. voilà kenn ki. parce que nee na yow daal fu ñu la gis dangay ngay daal di yaaññi da pare li ngay sant ak say couleur na nga koy agencé moom dafa bëggoon xam ndax yow da nga yor shop yaay solo sa bopp wala. wala waaw maay solo sama bopp instant yii ñu ngi waajal loolu nag ibbi shop boo xam ne Aline Fall moo koy gérer incha allah. Mhm. Kara xaar mi ngi Paris day yóbbu di bagage.

ñun ñooy solo suñu bopp. yàlla def na yàlla def na dañu yàgg nag dem fëgg jaay ba balba. ba dañu yàgg xam sa. naan di tey fëgg jaay ba la ñu jaar dañu yàgg sañse kolobaan dañuy dugg kolobaan xool benn jiin boo xam ni non da defe ne kii jiin bu poussière ñu fëgg. ba mu set waaw ñu xool t boo xam ne bal la san ko. dem jënd ci biir dàll yi dem dem xool ci biir fëgg jaay ay dàll yoo xam ne non dama fay gis ay Air Max old school xool yoo xam ni xool. amul fenn. wasaloo taxaw ñu taxawee ñu ne la shop nga ko jënd nga jóge. noonu la euh, li ñu amoon ci minute mi ngi ñuy daal di tënk. Mhm. ma bëggoon nga wax ma lan ngay conseiller gaañi ci corona bi euh, sa moo daal nga wax sa sa participation comme artiste nga te macha allah jeunes yi dañ lay déglu te Medina ba nga nekk tubaar fakkaala xale yi dañ laa daal di jox nopp. Mhm. ma bëggoon loo loo xam ne danga leen ti sensibiliser tuuti nga may ñu ci tuuti rek. waaw muy feebar bi euh, lu tëj ay jàkk. Hmm? Uh-huh. du ay fo. ay fo. tëj ay jàkk tëj ay juma du fo. Hmm? te ñun ay jullit lañ nit mënoo ko ne bul julleeti kon loolu mooy baal ñu sa diine ñu ñoo bàyyi suñu diine ah mais loo xam ne dem na ba tëj ay jàkk ba màqatal mu ndax ku nekk da nga ñaan yàlla aji uh-huh. mu tëj ko ndax febar bi kon xam nga ne feebar bi bari na doole du ay foo même bu fekke dafa am waaw ay waaw yaa ko xam même bu fekke ay wiri jadd jadd wiri febar bi ça existe amna lenn rek lu ñu mën muy moytu parce que manam yow bu bu bu lor sa bopp ba lor ci doom yeneen doomu aadama yi maanaam yow xolal ni manam bu la dalé rek euh, dina dal ben Alioune Fall dal sa mbokk bu la gëna a wala sax sa papa wala sa yaay maara day taali yàlla nañ ci yàlla musal moo tax li ñu wax mooy nañu moytu ñu fonk suñu bopp fonk seen sa sa say say nawle fonk sa sa sa sa réew parce que bu ñu la dëggalee benn affaire du pour yow pour réew mi yëpp la parce que koo lor day lor doomu aadama après muy laaw ay lorante lay doon yàlla nañu yàlla musal maanaam restez chez vous bu ñu wax waaye nag gars yi toog nañ seen kër nag de gars yi eh, toog nañ waaye dañuy dañuy jàddaru ko de. non non mais gars yi toog nañ de. ak ak 23h. non nu mu ne demee gars yi toog nañ gars yi toog nañ ba bi nee na resté dañu see nu ba sonn ba pare da ngay tëddee nu ne ay ma ngay toog fa ngay toog sa nga sa tànk yi nga ba pare film boo seetaan film bi day yéex te bu fekkee temps normal la da ngay seetaan film kon film bi gaaw nga def li nga da lay soof mais film bi day yéex day xoolal film bi jeex nga seetaat ak tegaat beneen film xoolal film bi xoolal jeexaat nga. Oh. affaire bi mel ni éternité. nañ ñu dimbali tamit nañ ñu dimbali tamit nañ ci yàlla musal nañ ci yàlla musal nañ ñaan yàlla yàlla musal ñu ci euh, musal ci mbooleem doomu aadama bu nekk yal nañ ci yàlla musal franchement sonn nañ yal nañu ko yàlla tege on est fatigué euh, El Hadj sa kàddu gu mujj lu muy doon parce que comme ni ma sama kàddu gu mujj mooy di leen bëggee waa tey deux cent vingt et ba pare sonn nañ trop on est ça suffit quoi. ça suffit nañu bàyyi ñu. noonu daal ngay tàggatoo nañu bàyyi ñu doxal. waaw nuyul waa Medina. non waa Medina sama xol Medina sama sama réew. Medina bi ma fonk Medina bi ma yëkkati Medina bi ma dooleel bi bëgg seen doom El maa ngi nuyu ñëpp waaw cat ba cat. Mhm. noonu la demee di bëggee waa pikin dañ may bëggee. Pikine Pikine dañ may bëggee dañ may bëggee dañ ma bëgg. ñoom Badam Mbengue ñoom Malaw ñoom Demba Jama. ku lim juum dañ maa bëgg ba ma xam ko ba ma xam ko Pikine di bëggee waa Géejawaay di jégee waa Kër Massar waa Fass Gueule Tapée Fann mhm. Colobane Gibraltar mi ma jege Fann euh, Plateau Rebeuss jamono ah di mm. bëggee képp kuy waa HLM tamit HLM dëgg la dëgg la ku waaw kontaan naa ci ñoom man it kontaan naa bu baax ci teewaay bi ay ca mbokk yeeg xarit ci mbégte la woon ak bànneex da partager avec vous le plateau suñu ndakaaru di leen jox dig daje ci yeneen saan ak ci yeneen invité comme ni ma ko tàmm di defee ak yéen saa su ne waaye tamit mënumaa jaxata ma ñi nga xamante ne ñoo nekk sama ginnaaw ndax feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya tey bu du woon man ak samay nit peut-être euh, am na nu muy demee mbir mi du du egg fenn fii maa ngi gërëm ñëpp mënuma lim nag ndax ku lim juum te temps bi tënk nañu waaye bu ma limee te gërëmuma waa no stress duma gor bu ma ma bu ma gërëmee te limu ma ñi nga xamante ne ni ñoo nekk sama ginnaaw ah ñoom Fatoucha bu ma nee ñoom Fatoucha yaa ubbi yaa tëj ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant mbégte la woon ak bànneex comme ni ma leen koy waxee rek di ko di ko bokk ak yéen saa su ne